<laughs> waaw ajaratu tey nag du ñu waxtaanee lu dul rek euh, làmb ji nga xamante ne ni jotoon na am démb. ndoxoon mm-hmm. ci diggante euh, ki nga xamante ne ni moo di Reug Reug ak euh, Sa Thiès di rakk ci Balla Gaye combat bi nag Gaston Production moom moo ko doon amal. ñu gis ne nag bi komba bi amee ba jeex euh, bëri na ay coow yoo xamante ne ni nemmeeku nañ ko ci muy euh, verdict bi nga xamante ne ni moom lañ yëkkati jox ko rëg-rëg te ñenn ñu bëri ci euh, ñi nga xam ne ñoo doon seetaan làmb ji seetlu nañ ni première round xaw ma nu ñu koy waxee noonu nee nañu gis nañ ni Sa moom moo dominer ki nga xamante ne nii moo di rëg-rëg ñuy wax ne wane photo yaa ngi noonu ñuy illustré ci ci ci ci écran bi ko defee bu ñu ko gisee rek xam ne euh, bi Sa Thiès jógee tàllal loxo yi wane nii dafa dafa daan ki nga xamante ne nii moo di rëg-rëg arbitre bi daf ne carrément nañu sëggaat bëre peut-être boobu moom amul woon lu ko leex mais gars yi ñu bëri indi nañ coow li bëri woon na ci daal ginnaaw deuxième partie bi la jël victoire bi jox ko ki nga xamante ne nii moo di rëkk-rëkk euh, loolu nag moo jur coow ba euh, stade ba. Mm. boo seetloo Omar après nemmeeku nañ fa ay yàqu-yàqu. surtout euh, jamono joo xamante ne nii ay autorités yu bëri parce que ñëpp xam nañ ni drapeau bi ministre des sports lañ ko dippee woon mu ba jatara Diarra borom Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ñu seetlu euh, yenn violence yi nga xamante ne nii bu ñu waxee ci combat bi ba noppi Omar nga laalaale ci tuuti parce que est-ce que jarati na stade yi ñuy defar pour mbëri yi supporters yi ñëw di ko yàq si mhm. defar stade moom. Mhm. jar na ko parce que ñi yëngu ci stade ci réew mi lan bokk te ñoom ci la ñuy dund. Mhm. kon euh, loolu kenn du ko ñaawlu. léegi jëf jëy am ci ñaawlu. léegi nag loolu. li ma ci jàngat démb bi ma gisee cool yi li ma njëkk lii dama ne préfet waroon na arrêté làmb hmm. ndax trouble à l'ordre public fii manifestation bu war a am ci réew mi hmm. trouble à l'ordre public la ñuy wax moo tax ñu ne du am lii am ci làmb nag man gisaguma ko ci feneen hmm. arrêté na nawetaan ndax trouble à l'ordre public estatu mbaaw mi ngi ñu tëj estatu tëngëj ci tëj ko leen dëkk te pourtant nawetaan la te du li muy am sax du mel nii mais lii chaque dimanche mu am ñu koy bàyyi muy continuer te du jël benn dogal boo xam ne dañ ko ciy jël na lii na yem wala ñu xool nan lañ koy dakale logique pour logique pour man waroon nañ mën a arrêter làmb ndax trouble à l'ordre public benn fitna yi am ci biir làmb ji hmm. beneen bi mooy bu ñu génnee hmm. démb rek sama waajur dafa waroon a génn ci ngoon waaye ba mu yëgeen làmb day am rek dafa toog parce que li mu yaakaar te pourtant meeting teewul nit ñi génn leneen teewul nit ñi génn te pourtant yooyu yëpp dañ koy ay ci réew mi. Mm. parce que dañ na trouble à l'ordre public mën na yënga réew mën na yàq alalu jàmbur. Mm. kon nag li yàq alalu jàmbur te yëngal réew mi làmb ci la bokk. lu waral làmb ji lu ne di ci xew. Mm. nit ñi di def lu leen neex parce que dafa neex autorité yi ak ñeen koy tuddee moo tax kenn du jël benn décision pour yamale waa làmb ji loolu question la. kon làmb ji mu ngi troubler ordre public bi mais ñi ko war a aye ñoom ñi ngi koy seetaan kenn waxul nag nanu aye làmb ci activité bi mais fitna yeey am ci làmb daa war a arrêté mhm. bu dee nekk ci ñaari mbër yi ak combat bi ni mu demee démb mhm. man damay am circonstance atténuante par rapport ak arbitre bi mhm. parce que da nga seetaan seetaanaat pour mën a wax ni diw moo daan mais arbitre bi benn bët la yor benn gis la gis bu amul lu ko leer day wax làmb ji na ne bu ñu paree nag li war ci boobule combat ñoom Sa Thiès dem def ko dem def recours waa CNG bu nu xoolee ba gis ni moom moo am ndam ñu jox ko ko mais daal li ma ciy rafetlu mooy ñaari mbër yi ñaari mbër yu courageux leen ñaari mbër yi am jom lan que depuis quelque temps lamb yi am yëpp ci VIP di mbër yu mag yi bu weesoo Balla Gaye ak euh, Boy Niang lamb yooyu yëpp daawul am xorom mooy démb boo seetaanee lamb ji xorom si bari woon na. Mm. mais fitna ji rek mooy li ko ñaawal. moo koy moo ko moo ko yàq su koy naka nga gisee lamb ji démb. Ah, euh, nga xam ne lu ma gën a metti nag mooy li làmb ji moom amul sax problème ndax ñoom ñaar ku ne bi nu bëree. ah am na problème kay parce que ñii dañoo euh, kontaan. ñii kontaanuñu foofu taxuma ah. wax euh, kii mage li ma taxa wax mooy dafa am ñoo xam ne dañoo juge woon euh, comme vice président bu MMA dafa ñëwoon pour xool ba xam fii mën na fi organiser MMA bi nu ñëwee démb li mu gis démb ci làmb bi su demee dañ lay yóbbu. Mm. donc danaan sénégalais yi danoo yabaate wala danoo réew. te am na loo xam ne mën naa ñàkk li nga xam ne moo di Sa Thiès ak kii euh, ku ku ne bi ñu bëree man de Sa Thiès wax dëgg yàlla defoon ne woon moom moo daan mais après circonstance bi mu amee gis nañ ni jël nañ lépp jox ko Reug Reug te wax dëgg yàlla ku gis lii. Mm. gis ko gis ko quatre appui am na. Mm. quatre appui bi ñu amee tamit ah yàlla rek a xam na moom mi moom mi Sa Thiès dina dem defi recours am. waaw dugal waxoon ah, nañ ne tey dina dugal dëgg yàlla mais lii moom leer na nañ ne dafa leer. d'accord ah, ah, daal daal du ma Sa Thiès du ma rëg rëg de waaye. en tout cas dugal na recours dinañu xaaral. ba xam dem nañ def stade bi dafa rafetul. te ay autorités yu baree fi ñëw woon mm-hmm. xoolal vice président MMA ñëw pour ñëw Sénégal fii ñu def ñu def lu mel noonu. ak suñu ministre bi tamit kan la ministre ban. Yankoba Diatara. moom lañ tuddee làmb ji de yow tamit. Yankoba duñu waa Thiès. ah. Mhm. ah ngi noonu kon ça. waaw man de. Hmm. Euh, d'abord ci jëmmi làmb. Mhm. yitteelu ma. Euh, mbirum wax ci ay mbër yu bëre parce que man mbër yi euh, ni ñu boycotté réew mi man noonu laa leen boycotté. di wax ci wàllu làmb man daal sawaruma di ci wax parce que ñoom. jàpp naa ni bu fekkee ne réew mi soxla na pour ñu wax it mm. da ngay gis ni mbër yi moom euh, seen yoon ci réew mi ñoom ak euh, musiciens yi defe nañ ni daal ñoom bu seen mbir. am na ay euh, yi na ay benn benn mm. c'est que ñooñu. Mm. dama leen di dëxanaale ci am na ay benn benn yoo xam ni dama leen di féliciter ku ci mel ni Kona. Mm-hmm. gis nañ ko gis nañ Modou Lo yëkkati kàddu wax ni am na ay dossiers yoo xamante ni président nee na moo ci teg loxoom te tamit bii nekk na dossier boo xam ne mën na taal réew mi. Mm-hmm. donc président tamit kii ñu ngi koy mun wax wax joo xam ne wax ju ànd ak courage la euh, dinañ gis ñenn ñi mais dafa bariwut mais c'est que man làmb dama jàpp ni sax pareen saa yi dañ koy tëgg pour nelawloo askan wi hmm. nga xamante ni bi euh, boo seetee communicateurs ya fa nekk ñooñ ñëpp façon wax yi nga xam moo ne ku ci nekk yaa ngi wut loo am ñuy nelawloo askan wi moo tax côté boobu bëgguma ci wax mais côté stade bi ci laa bëgg a ñëw ak hmm. li nga xam ne gis naa ko hmm. parce que bërki déem boo njaay euh, dem naa ci stade boobu Eh, ci gàmmu sëriñ aadi ñu eh, organiser fa mu nekk lu rafet neex nga gis nit ñi ñëw toog civilisé mu nekk loo xamante ni bi da ngay am fierté ci lu mel noonu nekk sa réew léegi nag bu fekkee ne eh, làmb ñoom nii la ñuy doxalee nañu defaraat stade bi ba mu baax defaat ci siège yu normal bàyyee ko ñi nga xam ne ñooy ki ñoom ñu defal leen fële ay dër ay perm yu ñuy toog. laaj bu ñu déggee dinañ la mere bu yaboon nañ ma mere mais c'est que li may wax loolu mooy li nga xam ne mooy parce que mënuñu jël làmb ji saa yu ñu waxee combat béti ñu yàq saisi yàq ko ñu ñëwaat di defar munuñu saa yu ku am lu la naqari dam mu saisi te duñ ci jàpp kenn. non seulement ah, ah? ñu dëkk ci booru stade bi yëpp. dañuy c'est que loolu day continuer. loolu day kon dagg xaalis bi bëti du leen wàññi dara. solution c'est que lenn mooy wax ji non non comme que ñii. bër bi deful dara ñii dañ doon wax arène nationale bañ kii nañ leen dem dàggal leen ca jam ñaajo. <laughs> waaw defar bi seerut. def ko ay kii ay maçon ñu dër ko. dërëg kuy ñëw indi sa njëgënaay. dërëg pour la waxuma la fi ñu toog kaay. bu ñëw indi sa njeganaay moo xam ministre moo xam ku ne yaa ngi dégg ñëw indi sa njeganaay toog wala nga indi sa kii bu ko defee ñu bañ faa def benn seize warta am benn lix parce que ñii ay yàqkat nañ bu ko defee nag arène nationale bi comme yu mel ni ñi fa ñoom aadi di organiser ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu diineek yenn kii am na ñoo xamante ne bi wala ñiy def ay karaté nga xam ne dañoo civilisé nga xam ne ñoom bu ñu ñëwee dinañ def seeni prestation dem seen yoon ci jàmm ak ñu koy jox ñooñu mais munuñu boo ñëwee ne luyee naa stade bi euh, moo xam ñu ne 5 million wala 10 million booy jógee yàq fa lu ti toll yàq stade bi yëpp. di di dox di wéq di dem. te dañoo bari doole. mais mais Alaaji loolu est-ce que dañoo bari doole dañoo dem ba ba ba bitim réew dañoo intéressé wu ci làmb moo tax. bitim réew bu ñu intéressé wu ci làmb defar defar affaire bi ba mu. ba mu rafet ba ku ñëw. waaw defar boobu dañ ko defar gis nga seen saa yi ni muy mel. ma jigéen dañ koo defaroon ñu ne lii dañ koo defar. pour lii ngir. Mm. parce que 16 yooyu buñ la ko defaree yow war ngaa yow. jombale sa bopp sax indi lu koy xoos. Mhm. yow ci sa wala lu koy taqal. yow bu dee nit nga nit warta man tey bu ma ñëwoon ci saison yi xalaatuma benn yoon pour sax jéem a taqal si waxuma laa nag di ko dajji. yaa ngi dégg làmb yi nañuy wut casque danañ leen rey ci làmb. danañ leen xàmmee. barki yàlla bu ñu yor kas danañ leen fi rey. maa ngi dégg Cheikh Sarr. waaw baax na. Cheikh Sarr naan waala wala du ma daw. du na moom nga daw xam nga. xam nga dama la bëgg a xamal lenn. man de bu ma nekkoon reporteru làmb bu may dem làmb dama yóbbaale casque. làmb daa wóor làmb wóorul de làmb dalul xel de. làmb làmb dafa dal xel. yaa ngi dégg bétti làmb dalul xel. mais parce que dañ laa gagné rek nga war a daj ñaata nit ñoo fi. def ay ñu di def loolu mais moo tax ma ne la xam nga yow bu ñu leen yóbboo foo xam ne bii dañ ko def béton armé yaa ngi dégg. kuule ko ba mu saf sàpp xam nga ko kenn mënu koo tam kenn ko tam Amadou Bari nu mu meloon ay jamono Amadou Bari noonu la meloon booy dem Amadou Bari da nga daan dem yóbbaale sa njegenaay boo ñëwee toog loolu nag moom la làmb yeyoo béton yaa ngi dégg ñoom du daan jekk ko toog ca béton ya ay ay ñoom ñëpp mais gan yeeg autorité yi gan yeeg autorité ba parce que ñoo ñëw làmb ku ñëw làmb tamit nga gis nga naa la xam ne bu ñu autorité yi ay baax booy yi fa lañ leen di fekk autorité ya daw ñu dem mu seesi. billaay li ma la wax lay la xam Sénégal dong mais tamit. billaay gis nga dégg nga bu ñu defalee autorité yi ne lii mooy autorité yi defal leen ay siège eh. affaire bi kii booy yi fa la ñuy fekk autorité kenn mënu leen a téye te dañoo am doole. damm siège ya du du ma autorité yi boole leen. Ah, donc nag fi mu toll nii daal lamb li mu yayoo. nañ leen defal béton armé. mais verdict bi doo si wax. verdict non sama yoon ci verdict. ah mais alaaji nag. mbirum làmb laa doon wax. parce que man bu ma gisee mbër yi gis ni réew mi yitteelu leen daal parce que am na tournoi yoo xam ne bu ci réew tollee maanaam ñëpp dañ leen a war a yitteel man waxuma man bañu ma mbër mu ànd ak Macky Sall wala ngër mu ànd ak Sonko wala mbër mu ànd ak kii mais na leen yitteel ñu wax ci joxe seen xalaat ci mbir yi. Mm. mais musicien yaa ngi nii. fekk ñi ngi tëgg soirée yaa ñu fees seen ngañ ci réew mi loolu baaxul. Ah, baaxul te bu réew mi amul jàmm it seen affaire du dox. waaw moo tax nag ñu. xam nga benn boobu bu yeboo comme ay maam góor yi nga xamante ne bi am nañ sax fu ñu féete amul problème mais mi ngi wax ci réew mi mi ngi wax xalaatam donte xalaatam baaxul. mais amul problème. xalaatam baaxul. maam Ngor ko woo ko invité baaxul non maam Ngor démocrate la. maam Ngor xam nga xam nga xam naa ni man gisuma mbër yi mais mbër yi ñoo gën a am lu leen naqari. ci ci nu ñuy def arine bi dañ ko dañ ko dañ ba neexul ba neexul mais nañ ko wax c'est le mot dañu reew ñi nga xamante ni ñoo def yàq arine bi nii dañoo reew parce que man je ni boo amul gis nga avant ñuy am arène bi euh, tout le temps da daan dégg ñu naan nañ wutal mbër yi fu ñuy kiiwee parce que Iba Mar Diop daan dégg caba naan bu bu nu kiiwee uude yëpp dañuy tëj buntu kër yëpp lañuy ñuy tëj tey jii bu nu demee ba wutal leen arène ñoom ñi nga xam ne nee na ñoo parce que ay soi-disant laa leen mën a tuddee que ni dañoo bëgg làmb ñëw di yàq làmb ana sportivité. non réewande moo réewande moo fa moo fa nekk parce que mënoo ni da bëgg lii ñu sacrifier defal la ko te bii c'est pas la première fois am na beneen bu fi amoon temps yii bi ñu njëkkee buddi chaise ñu buddi buddi ko mais dafa rafetul dañ ni dañuy xool vidéo yi ba ba ba identifier leen mais man dégguma ñu sanctionné leen au contraire mbër mii day dem di jëli reliquat ñu jël ko ci ni ko say soppee doon yàq ak affaire yooyu. lu loolu gis nga mbir buñ la sax da ciy kontaan. waaw mais xam nga xam nga parce que balaa ngay def recours da ngay fay. Ah. xam nga xam nga lan mooy problème bi. Ah. ma jigéen buñ la dénkee. Hmm. njiit du ragal. gis nga boo waree sanctionné sanctionné boo waree sévir séviral man dama dama sama sama rab mooy bañ njiit bu ragal. Mm-hmm. njiit du faible non man sanctionné man sanctionné ñoom identifié nañ xale yi bii passé ci ay vidéo duñ dem ñu jàppale. Eh, xam la waxante li fi mm-hmm. dagg boobu moo leen yitteel. non non dagg bi buñ la ko daggee bu dee 500000 bu dee 1 million buñ la ko daggee sa benn soppe may la ko dagg bi du dara. Mm-hmm. mais nag nañ CNG moom na am xaalis moom xaalis mais verdict bi. ça vraiment verdict bi man si CNG li ma gis ci sama yoon nekk si parce que seetaanu ma bi benn ñaar photo yi laa gis photo bi ma gis gis naa rëg def ci quatre app wi mhm. après dama dégg rek ba léegi mënu ma laa wax ni lamb ji nii la demee parce que fekk na man may daw di jóge sama kër yaay di ñibbi sama kër parce que bu lamb amee fu ne la ñuy na ni seetaanu ma ko mais bi ma yónnee moom ah, quatre ji mun ta nag ba fekk la fa foofu lamb yow nam nekku ci lamb ma taxaw ci but cinéma unité 3 ñu def groupe di ñëw ñëw. fu ñu jógee borom kii yëpp dañ seetaane. non mais lu leen neex la ñuy def ci tali ci lamb yu mag yi la non ci lamb yu mag yi la de. Ah, saa nit ñi dañuy dem ma nekk bu fekkee lamb yi rek fa nit dem di jaar noonu di daam ñuy profité ci moment yooyu total mooy am day am. mais man daal li ma ci métti mooy. man fi ma taxaw gàddu sama saak la ma commerçant bi ne dox na si duggal ci taxi balaa ñu la fii fekk ñu nga ne di ñëw. mooy li wax nga seen leen ñu bari. fii ma taxi maanaam bu ma demoon damay yokk paas dama naan la dama naan la bu booy dugg ma naan la dix la de. dix mille vraiment vraiment war nañ ci jël ay mesures yu sévères ñu may nit ñi jàmm na serait-ce sax pour sécurité kër yi nga xamante ni ñoo nekk aux alentours de l'arène nekkatuñ ci sécurité seen xel dootul dal seen fit dootul dal bu làmb amee man ñi ma yërëm mooy ñi dëkk ci alentour yi alentour bi parce que yow da ngay gis làmb ji day tas mais agression nii ci kanam laa la wax xooluñu fu làmb ji am ak fu mu amul. yaa ngi wër rek dañuy wër am na boo yoo xam ne mouvement la ñuy def. loolu la jaar lu ñu romb ramassé. yaa ngi dégg ñu ne ah, xaw ma simol la tudd xaw ma lu ñu romb ne ñëw leen géew. am na ñoo xam ne moom dañ leen di kii rek ñu ñu joxe bu dee tàppet yu mel ma jigéen moom buñ nee ko xaas moom la da lay ñu yoraal dañ lay suuj eh, lamb jële passé waxuma bii mais am na beneen bu mu fii def ñu def noonu simon la xamul lu ñu def noonu ñëw ba ci tali bi sama benn doomu baay ak beneen femme femme bi nee na dafa jëli woon nattu 400000 ñu nangu ko ci moom sama doomu baay bi ne ko yow loo yore 400000 doo jël taxi mun nga danga ko yorul xam nga dafa am loo xamante ne da <laughs> mille di di xaar car rapide xalaatuma ko même bu ma ko moomul. dëgg la ah quand même. Ah, waaw waaw waaw dañuy wax ni dañoo ah, dañoo ah, dañoo yaru. ndeysaan ndeysaan war na ak a ba pare dañuy wax euh, maa jigéen naan mbëri mbëri mbëri. des fois mbëri mbëri yi defuñu. mbëri duñu def dara mbëri defuñu dañ ko taal sax même ñi ànd ak ñi ci des tam am na la ñooñu bopp tuddee kaay ma wax nag làmb dafa am tension avant actation euh, après parce que bëgguma wax ci mbirum làmb non yaa ngi ciy wax ah yaa ngi ciy wax de. non man seen signature bi ni mu demee seen signature contrat yi. ah même ñoom waajooju mooy moom la ñu jël mu leen di xam ba xaw ma je ne sais pas sa Lamine Samba mooy mu tuddati Lamine Samba je la sais pas. Lamine Samba. même seen de gis nga la fàttali Lamine ba wax ba pare saxaar ko Lamine wax dëgg man li nga fàttali ko moo ñu ngi koy nuyu manifestation bu am. bu jeexee dina ni jàpp nañ ay nit. ngir li jënd seen mbir. làmb ji day tas kenn du jàpp kenn. te ngi def saa dañuy ruube di def yi en tout cas doy na waar. ministère des sports daal war na ci jël ay sanctions. ñu arrêté làmb ba xool assainir milieu bi wala ñu xool nu mu koy defee lii mooy dëgg. parce que démb ma ngi ko moom tuddee woon drapeau bi ñàkk bi. baax na ci parce que ñu xam. li li li leen dal nii. ma ne li sën say wax fii keroog. làmb du sport. Mm. mais wax na dëgg. sport waaye du sport waaye quand même làmb lu ko def sport. sport national làmb bu doon sport bu doon sport xam bu doon sport ah. Mm-hmm. gis nga ba xamal la leen ci gis nga làmb. yow xam naa gars yi nañ la. làmb jegewul non du sport noonu la tudd du sport. <laughs> du espoir ñu ngi gis nga dafa am yoo xamante ni Xaadim moom Xaadim Njaay ci bu ma ñëwul lu mu waxoon am Xaadim dana woon day baar nañ ko ci TikTok bi mais nee xaaju xar la waxoon xaaju xar <laughs> neen kii day neen day daanu nee na waxutoon xaj bi ah, ah, ah, nee na xaaju xar la waxoon waaw ba waaw Xaadim nag je l'aime bien mais wax suñu xel non non mbërëm daal non non moom dafa estati mbërëm estati la Xaadim dafa estati liiru estati liiru kat appui la estati xaadim estati. mais liiru démb gis nañu ne liiru sa seetaan nga baar liiru. <laughs> ayca mi ngi noonu ayca kon mi ngi noonu <laughs> comme euh, euh, euh, Sa dugal na recours nag nañu xaar foofu wànnent di mujjee ki gëtam comme nañ koy waxee. Mm-hmm. en tout cas doy na waar. wax na benn nee bu dee. top moom lu mu xam ci làmb ba ciy wax top technicien dafa en tant que technicien waaye da ngay déglu kañ la mu wax. waaw waxal top dane bu dee vidéo la kat appui amut. nee na bu dee nag photo la kaddaati am na. waaw luy doon waaw. mais c'est li mu wax xam nga loolu amoon na fi ci. Euh, Modou Lo ak euh, kii. Mm. Baye Mandione Baye Mandione yaa ngi dégg Modou Lo ak ma Mandione mais bi ñu demee recours. Ah, dañoo dañoo bañ a jox. Euh, Baye Mandione victoire après Modou Lo lañ parce que boobu. pour nga gis ko problème la. Mm-hmm. waaw donc. li topp wax tamit photo yi photo yi. il faut nga mais bële tamit photo la. xam nga tegoon nañ foto ba. yaa ngi koy fàttali ba gars yi di téléphoné di saaga rek di wax kii. <laughs> wala njëriñ moom. <laughs> ñun tamit yàgg nañoo enquête. <laughs> def ko arrêté image. xala daal def arrêté image. ñu wane kaat at bi léegi gars yi di lool. alhamdulilah baal bekkaay yow nañu ne bàyyil bekkaay. lu mu mel bëgg nga rek saa njóogu waxati bekkaay bàyyi li ngay def yow. lu mu wax mu ne. waxul dara. non non na ma fàtte dimbali ma su kaay yaa fi indi tur bu bekkaay. waxal li mu wax jox ma bekkaay yow. waxal jox ma ko. wax ko dafa daw daw. waaw lan la. Bécaye wax ci affaire yu am solo nga naan la lu am solo rek. ci mbër mi la wax loo foofu am na ah, moom Tafa ak yow loolu. waaw wax loolu mbiru reporter kay wax la te il faut technicien gis nga ah. mm-hmm. gis nga ñoom pour ñoom ñii di wax. Mm-hmm. duñu ay pro duñu duñu duñu ñoo xam ni ñoo war a joxe verdict yaa ngi dégg dañoo war a tënku ci li arbitre bi wax. Mm-hmm. yaa ngi dégg mais taxaw fii di wax naan dégg naa Tafa Gueye ak kii ñu koy wax naan kii daan na mais loolu ñoom waru leen. amoon na benn waru leen euh, parce que ñoom waruñoo waruñoo joxe naan. diwa daan wala diwa daan ñoom waruñu ko daan parce que dañoo teg arbitre ñoom ñu li ñu gis li ñu gis mën nañu wax ne daal. lii lañ gis waaye li officiel mooy lee mais ñoom dañoo waru leen. ça xam nga man. d'accord naa. man d'accord naa sax moom Moustapha Gueye mais parce que moom du professionnel. Ah, euh, moom mbër la kan moo dul professionnel mbër bu doon bëree Moustapha Gueye. mais Bécaye Mbaye mi yàgg ci làmb di yàgg a def. kii reporter war na mën a yem. waa saa loolu yàgg na ci mën na yam ci décision eh, li mu wax wax am solo la am wax du yoon la bay bëgg a dee dakaay li mu wax du yoon tëgg ko yaa bëgg saa ñëw dal non non li dakaay wax du yoon ni koy nuyu de te loolu maa ngi wax ñoom Xaadim Njaay ñu yóbbu ko ci bi jeex na waxul lu ba xamoo lu mu wax Modou Mbaye Modou Mbaye Modou Mbaye sëgal saa ñëw mu wax ba mi ngi noonu ajaratu kon moo nekkoon su kaa gars yi bu baax a baax seen doxalin ci ci ci ci stade yi parce que defaruñu ko pour ñu koy yàq tamit nañ ko wax ajaratu di leen jox